waa ndeysaan coow li ngeen gis ci kaw Eumeu Sène le roi des mooy wàcc nii Malick Ndiaye maa ngi lay nuyu mbaam nga jàmm naka itay naka bagaas yi waa ndeysaan jibi champion bi ngay seen ni mu wàcc xale Pikine baa ngi nii ànd ak magam Papa Ngom Papa seen nii Papa Ngom seen nii mu am pitel muy sotti Malick même tuuti rek la ndeysaan ñu ngi ñuy wis ay galaaj ñu ngi ñuy sotti ay galaaj Pape Ngom de seen nii kii sotti bi teel moom Eumeu Sène a bokk ndey ak baay kii mooy Papa Ngom eh Eumeu Sène le roi des arènes xale Pikine baa ngi nii seen Samba Xoyaan baa ngi nii eh Eumeu Sène Demba Ngom ak Demba Ngom Demba Farma xale baa ngi nii xale Pikine baa ngi nii Papa Ngom de seen muy ànd moom di wàcc xale baa ngi wàcc. maa ngi wàcc maa ngi wàcc Eumeu Sène a ngi wàcc Eumeu Sène a ngi wàcc mi ngi ci ginnaaw Papa Ngom li nan mbokk ndey koy jur moo Papa Ngom bokk ndey ak baay ey Eumeu Sène ey Eumeu Sène ey Eumeu Sène ey Eumeu Sène ey Eumeu Sène Eumeu Sène a ngi nii li ma naan daa fonk bis bi li ma naan du caaxaane bis Euh, roi des arènes ñëw na Eumeu Sène roi des arènes ñëw na ey Eumeu Sène ey Eumeu Sène jàmba jigéen xale Pikine baa ngi nii champion nuyu naa la champion nuyu naa jigéen Papa Ngam laa andal nii Eumeu Sène le roi des arènes eh Eumeu Sène eh Eumeu Sène eh, xale Pikine bi Eumeu Sène le roi des arènes Demba Ngom ak Demba Ngom Demba Farma xale Pikine baa ngi nii le roi est là le roi des arènes si na fii ci monument de la renaissance Eumeu Eumeu nuyu naa la Eumeu maa ngi lay maa ngi nii ànd ak maga ànd ak magam Papa Ngom Eumeu Sène ngi nii Ali Ali Ali noo def. waaw waaw. mi ngi ànd ak kayit gi Papa Ngom. ndeysaan. Magam. ndeysaan. waaw. eh Eumeu Sène. eh champion bi. eh le roi des arènes. xanaa fàttali ngeen diggante ba Bombardier barki doxal doxal. waaw waaw vérifié ma daa mel ni. Eumeu Sène. Ama Sène yéeg nag Ama Sène yéeg nag Ama Sène ngay seet waaw man na man na c'est bon waaw baax na waaw xam saa na jibi jibi ci suma de ana jël mo do akam bi Thank you. may